koo xamewul ngand mi dangaa jël morso ngand mi. Mhm. di ci ngand ngandalu. ku ngand rek kay def loolu. na ko merci man dama sama dama dama kontaan ci li nga wax sax. ah ah na kontaan ci li nga wax sax. <laughs> bàyyil ngand ngandalu bi nag. te xam ni bu doon ngand nga da ngay jël sa yëfi bopp. waaye morso ngand mi nga jël di ci ngand ngandalu lu waral loolu. ba noppi ngay wax sa bopp ngand bi kon kay super ngand la. Youssou waaw moom na am ngandam moom nangul nañ ko ko ah, ah yow. ngandam moo tax lang-langi ci ngandam ngandam nangul nañ ko. ku bëgg cee ngandam mais maanaam boo xoolee lii mooy sunu dernière production yi ñu def. dañoo hmm. def sunu yëfu bopp ba ba sonn boobu. doxut no du doxut. suñu yëfu bopp mu ngi dox. lu mu doxee suñu yëfu bopp mu ngi dox. bii moo mujjee génn moo tax. ne ko bii moo mujjee génn moo tax. Ah. ñu wan la ko mais am na yeneen yu ñu def yu bokkut ak yi. yu gën a dal bii. Ah, mais kon kon cela veut dire que du caaga mais xam nga li nga wax ngand bi nga wax. waaw dañ ko koy nangul ngand la moom. Hmm. non yow ko moo tax. non ngand la mais kuy ngand dëgg mooy def li mu def. waaw ngand jàmbur ci nganduk jàmbur. ngandu nganduluma ci ngand jàmbur de na ko ngand ngand ma <laughs> ci ngand jàmbur ngand ci jar ngand ngand na ko ngand ngand lu ma ci ngandam de mais problème bi mooy boo dul ngand doo mën a def li mu def moom waa déglu ba rek sëriñ Cheikh mhm. ci jar ngand ngand lu mais fii wax yow loo fi wax lu ne dañ koo loo fi wax lu ne dañ koo waxaat ah yow loo fi wax lu ne nii nii nii dañ ko waxoon nga waxaat loolay àdduna loolay àdduna Youssou Ndour lii mu wax lii mu wax nii dañ koy waxaat dañ koy waxaat man mii ko wax suba dinañ ko waxaat kan ma dégg yàgg kan ma ko xëy na sens yi ñu koy waxee ak version bi koy waxee moo dul bokk rek ne benn la mi nga xamee ne yow doodu bokk yow mënoo ko woon defee neneen yow mën naa koo defee neneen nudul nii mais nii laa ko sentiree defee mais da moom moom ngand la moom ni mu ko defee ku doo def li mu def moom ni mu ko ngand gi mu doon moo tax ngand laa moo tax ma def li defee ko sentiré yow ko sentiré ma defee ko noonu lu tax nga ko moom ni ko defee te yow bañ a indi yow sa yëg-yëg waaw mais ça dafa lu nekk ci musique loo xamante ni nii hmm. mooy musique yëg-yëg la yow depuis ñaata at yaa ngi musique bon man 2013 ba tey eh, boobu booy lañ 2013 <laughs> 2013 <laughs> ba tey ah maa ngi crèche. ba nga ni na ko 2013 ba tey maa ngi ci. mais mais mais léegi c'est man bon à nag bu fekkee ne wax ji jeex na su fekkee ne wax ji jeex na. tamit caaxaan jeex na euh, li nga way fii ni nga ko wayee neex na. Mm-hmm. vraiment moom neex na moom wax dëgg fa yàlla nag bu dekkee nag dañu jógee tamit ci cadre caaxaan ak dara yeeg yooyu mm-hmm. ni nga ko wayee fii neex na bon mais xam nga man mënuma la juger ci lii mm-hmm. parce que lii wayu jàmbur nga jël doot neex na mais bu fekkante ne bi mën nga ñu may loo xamante ne bi ñun ñu la mm. ci leneen loo xamante ni sa ak pelaab la waaw ah, mais loolu du jës loolu méttiwut ah, nda ko loolu méttiwut waaw ah, loolu lañ bëgg sama yaaya mbooy mama bëgg naa la lool mama mama je t'aime fii laa leen def sama yaayam bëgg naa la lool mama je t'aime mama fii laa leen yaay sama yaay yaay bi la yaa di góor sa ñàkk doy na la soo lekk bàyyi ñëw mosuñoo jooyoo xiif mosuñoo jooyoo maat bi bàyyi demee ba tey lépp lu fii dee yow yaa ko rey ndox courant yow yaay fay jàng xale yow yaay fay ci yow la bëgg a moo tax ma di la way su dooyu lee ma waat bi laay mën naa ko waat yaay suma yaay yaay yow jigéen ju man góor nga macha allah neex na non neex na c'est dafa may dëgg may nur benn waay bu may gis ci TikTok bi non ah non may ma waa ji may c'est que ma wax la na benn mhm. gis ci TikTok bi naan fii rek ngay gis kuy bàkku di Euh, sama professeur musique ngay wax. Oh, kooku soxla naa ko kooku mu ngi tudd index. no non il est fort. ndax kooku saa yi mag ci kooku. parce que dama ko gis. non nekkul Sénégal nag. ah nekku fi mu nekkul Sénégal mu oh, di jàng bi laa mu ngi tugal di jàng index la. oh là là mais kooku kooku dàq way ci Sénégal. nangul naa ko kooku mooy sama professeur leer naa la kooku dafa aay. la musique. bétti soxla wut musique. pas de lan kii ma la joxe daal wala da ngay bëgg a kan na <laughs> c'est que mm-hmm. bi ngay way moom laa gis ci li nga xamante ni moo tax bi nga ne sama professeur vraiment ma xam ni tamit mais li nga li nga way nii sànq neex na Omar euh, en tant que un ci wàll bi nga xam ne mooy musique kër Alaaji Paate noo gisee kii sër <laughs> la Alaaji Paate waaw <laughs> kër Alaaji Paate sa sànq la bëggoon wax loolu ci Alaaji Paate lu bari alors que toog pour toog ma pour Alaaji mais mais man xam naa ni. da nga ne ngay def. Hmm. mais mbalax moom bokkoo ci. non non non mbalax parce que genre musical ñu ngi gën a ay afrobeat wala yenn kii afrobeat afro mbalax afro trap mën nga def mbalax mais du doon mbalax 100 pour cent afro mbalax lay doon quoi waaw mais ba déjà li nga way neex na. Mhm. te man lu tax ma gëm ni mën nga. Mhm. mooy déjà mooy Youssou Ndour damay gis ñi koy toppaloo ñu bari dañuy échec. moom ndongoloo ñoo yem. am na beneen gars bu ay tamit ci bari man damay seetlu ñi leen di toppatoo ci way dañuy échec. Mhm. pour man seen niveau moo kawe ba pour topp noonu dafa jafe. pourquoi choix wu amitié. non Omar Pène neex na toppandoo dem grave. pourquoi amitié pourquoi amitié waxoon naa ko dama koy waxaat amitié. dama daan dégg damay dégg yëg xam naa ne am na loo yëg. waaw damay dégg gars yi di def cover. Mm. di way wayu jàmbur yi di ko defaat cover. Mm. mu doon way yu ma neex. Mm. man amitié dama koo xaar ba sonn dafa doon way boo xam ne depuis à bas ma neex. Hmm. mais may dégg gars yi di cover di cover mais dégguma ko ko cover. Hmm. pourquoi pas léegi gars yi di cover di jël woyu jàmbur di cover te man ci métier boobu laa nekk pourquoi pas ma jël woy bi bind ko cover ko sama bopp. Hmm. parce que dama ko yàgg sentir ah bu dul dara dama koy wayantu. après ma def ko cover mu jàll. léegi man li ma doon yëg ci cover jàmbur yi di ko sentir moom la gars yi di yëg ci cover ba may woo naan ma merci parce que woy bi daf ma yàgg neex. yaa ma leeralaatal parole yi wala yaa ma ko indilaat waaw message dafa jàll daal loolu tax man ma kooba ko parce que dama ko xaar gisuma may leen ñu def ci mhm. bari mhm. mais ba pare euh, li nga wax noonu dama koy c'est tellement vrai kooba jën la. kii di animatrice bi waaw kii. léegi ci kan nga déggee moo kooba. <laughs> Eh, eh. léegi je veux dire man man li tax kooba neex ma. kooba yi ma dégg yëpp day am parole yoo xamante ne artiste bi original bi doo xam li muy wax ci way wi. mais bu ko gars yi kooba. yow da ngay xam ni kii lii la bëgg wax fi lii la wax fii. <laughs> xanaa ngay gaaraale. non non non du loolu. non Omar Pène waaye kooba la ñu ko la ñu ko am na am na yeneen personnes yoo xam dañ may woo. même chose ne ma parti bi musuma xam ne lii la ñu sunu doon wax ci parti bi sa musique bi laa xamoon eh. li la ndax mën naa Omar Pène kenn mënu ndax mën nañ ko kooba parce dafa am loo xam ne kenn mënu ko en ah, kay Omar Pène mën nañ ko kooba musique bi musique la ñuy def mais maanaam xëy ba ci biir foog dina dina jafe lool parce dafa dafa ay moom yu bëri da ko codé mm-hmm. na ko mais man bari na li Omar Pène koy doog a xam moom a xam yaa ngi Omar xewee xam ko de temps ah, booy doog xam mais boo ngay dégg ngay xam li ñu ne seer nga coma du ko way <laughs> non coma hmm. sama question xam dama am question ba noppi nga fexe ah. lay dimbali rek demal non billaay question ba naaw na loolu laa ci jublu woon saay question ba est-ce gaynde gi nga jàkkaarloo question bi naaw gaynde Fatma <laughs> mën na ne tamit. mën na ne booba tey yaa ngi laaj question yu normal nga jàkkaarloo man sa question di naaw tamit. di wëndeelu rek di wëndeelu. non non man am naa lu ma ko bëggoon laaj mooy que ne saa ah, bàyyi ma nag damay laaj comme que nanguwul. Ah, non dafa am bi nga bi nga dalee wax ba léegi nii man sentir gu ma yow. Mhm. sa bu nga indi bi ngay woy tout à maa ngi sentir mel ni comme si Carlou D mooy wax wala l'autre kii ànd ak euh, keneen kii. te muy hmm, def. Carlou D Euh, damay fàtte seen tur yi mais euh, mm-hmm. damay fàtte seen tur mais ay sénégalais lañ yuy rap. Mm-hmm. booy wax dafay mel ni comme si ñoom seen style nga jël. non jël si si am na sama xalaat la boo loolu man maa ko bàyyi ko mu tontu wax bon Carlou moom. Mm. boo bëggee dégg dëgg mooy sama idole ci musique. su ma bëggee su ma bëggee musique bëgg musique ba koy def moom moo tax quoi ah, non du moom moo tax ma rasta ah, parce que man man man man rasta moom ci man la bokk quoi man rek maay rasta quoi man maay rasta ah, man maay rasta mais j'ai beaucoup aimé sa humilité mhm. maanaam bi ñu waxee kee sa prof la bi ñu waxee kii sa idole la maanaam humilité oyof boobu nga am ba mën di nangul ñeen yi te des fois nga indi invité fii benn booy mais des fois côté boobu da ci xaw dis trop non Karou di moom boo bëggee dégg-dëgg ci ay wayam ci ay wayam laa jàngee way boog dama daan tëju ci néeg di woy woyam mais yow mi nekk ci biti nekkoo ci biir néeg da nga yaakaar moo ne ci biir. benn hmm. kàddu xëy na doonu benn kàddu benn kàddu ñu xool. fii lañ lay jàppee tey nga dee. fii mooy seen régal non non non a dëkkee ku a dëkk fa ngolo du bay baabun di dundee dëgg dëgg sonn nañu àll ba ngi daay gën a njaay ku ne fa nga dëkk dëkk yi ñi sës dëkk yi ñi sës ndëkk ku ne ngi fal ñi mbëkk dem kaw def picc nawle moom mi ñu tiim xam fa la fa ne ki fandee ki jarle ki jarle ki lambale fu ko neex dal fu ko neex bari dal loola tax bu di ko dakk boole wu jëkkal bu a tax bara jëru bañ ki jàng ak ki jongul te wappul te wambul wërsëgam mooy wadara ni digg yëpp ni jën di lekkee jën ci biir géej rab di ko lekkee rab ci biir àll noonu la nit di lekkee nit njaay dañ lay sucré xel xoromee la fit war a a Sénégal Ndiaye. wóoy dance. wóoy dance. non nice nag lii lépp la wax. xamoo ko yow. yow booy. yow la Carlo di toje. non man moom. doomu Carlo. non ku wet xam boppam mais man moo tax ma bëgg a. man moo tax ma bëgg a. mais xam nga kii. dès le début wax la ci ay wayu Carlou D la. ci laa jàngee way baatam mais seulement dafa li muy wax. maanaam baatam baatam macha allah nga baal ci ay wayam. waaw baatam baatam dafa leer. mais ñi ko bëgg. non li mooy li mooy li ci gën a ndaw même ay sañ-sañ la mën-mën la gëm-gëm la yëpp ay la ci wax doo xam ne yow. li ko dégg doo xam sañ la mën-mën la gëm-gëm la gu dëgg gis dëgg xam dëgg wax ko yàlla may na ko kii lu nit murit mooy kii yamale ñàkk ñàkk ki am jafe ndigal te bàyyi tere nangu ni yàlla buur bi kenn la rasulillah na nabi gën gi yoneen sëriñ Bamba amul morom yàlla wutale gu ko morom mais indil ma bi ma gën a nekk mooy seen seen régal Sénégal Ndiaye ah, ban parti ci Sénégal Ndiaye mooy fi muy wax xam ne danaan ne mel Sénégal Ndiaye mais ni mu ko waa waxal rek ci moo boobu nit ku nekk xërëm doomu aadama ngalam de picc naa na xërëm picc naa na xërëm xërëm ba am ngërëm du pay yàlla maram cëram ngërëm nit la ngi tëngi tëngi tëngi tërëngi xërëm ba am ngërëm du pay yàlla maram cëram ngërëm ki nga wóolu ba ñaan ko mu may la yàlla la ñaanin mu may ko kañu weccee xalaat xam-xam bàkk na sens ixsaan ay connaissance lixsaan ay connaissance gërëm nañu Sëriñ Tuubaa Mbàkke bi mu ñu mayee li bépp góoru yàlla di wër ñu naan ko nuuru laaye walaay bi laaye li ko tënk dañ ko jàll li ko fi jàll dañ ko fal bu falu doon taxa doon buur benn buur du dee fa ñu jëm neexut gëm kenn du ko gëm dañu koy yëg booy def bala ngaa gëm gis bis booy gis booy woy buus fii dañ lay sucré xel xorom mee la fit war a xel a bët digéré la waxi gese fii mooy seen régal njaay fii mooy seen régal njaay ah waaw xam na foofu ah? ñu bëri doon tegoon Sénégal Njaay lay wax la wax waxul Sénégal njaay mais seen njaay maanaam ñi ñu jiite ñoom ñii bul féliciter ça. non non animateur yi ñoo leen woroon di oh, invité di leen wane. maanaam ça voilà Omar indi nga sama question bi jërëjëf. Eh, c'est que xam na moom ma ah. bien c'est que loolu laa doon wax c'est que. maanaam macha allah. wala mhm. euh, question ba ñëwoon ba léegi de mooy wane animateur ak yooyu. daanaka amatuñ. Mhm. xam nga lu tax amatuñ. Mm. mooy ñu mel nii. lu tax duñ leen saa am na. ñun ñaa ngi animé ba léegi am na ay waykat am nañ mais ay melomaan amut maanaam ñuy déglu musique moo amut c'est que looloo tax fi mu toll nii musicien dëgg boo ko fi nekkee doo da ngay pauvre xam na la ngay doon pour mën a am mooy sàmbe mbayaan kat yi ñoom ñooy mën a am mais musicien dëgg boo xam ne aar ngay dund duñ yor dara loolu mooy erreur mooy man ne Sénégal amul mhm. melomaan nañu waxante dëgg mhm. parce que macha allah yow nag dimbali nga Carlou di ci parce que noonu non tey man. musuma xam ni Carlou ah, D moom waxam dafa la mm-hmm. ay war ay rabu Carlou D dama ko doon. non del déglu ay teg sam. non de ko non muy wax amul njariñ. que xam nga ni. mais Carlou D fekk club bu Carlou D. fort trop dañ ñoom dañ lay tojal woyu Carlou D. dañ koy déglu ah, religieusement. wax la li muy wax fort trop. si si bi muy woyee. non dépassé na beneen niveau la. mais yow ah. la lan mooy say projet. oh man samay projet nag. la <laughs> <laughs> non non samay projet nag ñi wax ci ñeneen ñi rek mais dama bëgg ma wax ci boppam quoi samay projet nag bëri naa bi gën a am quoi parce que ki ki dafa reçu quoi bon bi mooy deuxième plateau ah non son yi son yi bi mooy sama treizième single parce que man d'habitude treize yow kay album la Euh, Baba Ndiaye moo ma invité woon. bu ITV Baba Ndiaye jar naa félicité waaw ma invité semaine bële passé. si si Baba nit ku baax ñu ngi nuyu. ITV la maa ngi koy nuyu de passage nit ku oyof ko parce que. ITV la dafa war a jóg ci réew mhm. maanaam ñuy nëbbuy ndaanaan yi. Mhm. parce que ndaanaan yi il faut que nit ñi di leen fësal. Mhm. donc sëñ bi mbir mi du ay tur kii moo. effectivement nit ki day taxaw nga xam ni ku mën la parce que kii fi mu toll nii man su ma doon seetaan bëti mhm. mu def lu mel ni ma seetaan ko nii rek. Mhm. mais dama naan sa télé lu baax. donc fi mu toll nii yeneen télé yi koy gis. Mhm. war nañ wax ni kii kat. war nañ la. macha allah. loo def 13 yëpp indil ñu ko fii wax. non non xamal li li wax dañuy yàgg ci yoon bi imaginer nga ni 2013 ak léegi. waaw 2013 tey jii dans les médias waroon nga mën a gën a fees ñu lay. ah oui c'est que loolu ci yow la euh, peut-être mën na tamit ah. non ci moom ci télé yi man ci télé yi la wala wala wala parfois ah. xam nga musique boo boo basewul noonu dañ jàpp ne musique Dakar la quoi. te musique du Dakar. yow foo ah. basé. musique du Dakar man maa ngi dëkk Pambal. Pambal ah, Pambal nekk région de Thiès la nekk. presque Tivaouane ah waaw Pambal laa dëkk. mais xam nga boo nekkee dëkk yooyu noonu ñoom hmm. souvent souvent boo jógee ci àll bi ñoom du àll sax ah. ah mais duñ la la faral di bàyyi xel quoi. da nga ciy dox ba dee di ci wax ba dee mais duñ la duñ la faale. mais bul wax loolu parce que am na ci ñoo xamante ni waa hmm. express. ñoom ñoom Mbàkke lañ jógee Jurbel lañ jógee Jurbel mais bi ñu ñëwee bi ñu jógee Jurbel ñëw dañu imposer seen bopp imposer seen musique tey jii mënoo lu wax musique sénégalaise te boole woo leen ci nekk bañ jógee Jurbel groupe lañ woon mais biñ jógee Dakar waaw mais ba tey nekk yaa ngi def ton de chemin non am naa manager no ko am naa manager mais est-ce qu'il waaw waaw mu ngi def li muy war a def mu ngi def li mu war a def no ko mu ngi def li mu war a def mais tamit xam nga rek am na fooy produire waaw man moom produit moom maay produit sama boppa ah. non non non produire foo xam ne fooy waaw sama dëkk moom chaque année. non parce que dama bëgg ngay joué waaw côté boobu la amul njariñ yaakaar di xamante ngeen. non wax dëgg fa yàlla wax dëgg fa yàlla xamante wuñ nag. yow il faut nga xamante Carlou D parce que tey lii nga defal Carlou di mhm. Carlou D vraiment. non boo xamante ne soxna si rek. parce que il faut que Carlou D moom soxna jàppale la parce que yow mi ah soxnaam koy mënaat. waaw soxnaam Carlou rek. ñi ngi wax soxna Carlou D xaw ma nu mu di ko wax ne ko. soxnaam rek faaw mu. approché booy bi jàppale ko. quoi même la reprendre def ko mu naaj. Ah, yooyu yëpp na jaar ci kàddu bu bu toog dugg ci biir gaa yi. voilà sukk du la tee yóbbaale say oom. ba am li nga bëgg. Mhm. jeex non ñu ngi def lu ñu mën a ah, musique bi moom parce que dañ koo bëggal suñu bopp nattu la bu ñu yàlla nattoo ñun. ñu ngi def suñu liggéey di def yeneen liggéey mais. musique bi yàlla luñ bon man infographe la infographe d'accord ah ndeysaan a am na benn bu ñu def clip mais séquence six jours lañ ko def ah, cover love bu paree rek nga indil ñu a parce que yow moom bon ñu ci projet ah non li ñu bind weesu na weesu na ñun li ñu li ñu weesu weesu nañ ko quoi li ñu bind ba génnee ko weesu na waaw mais am nañu ko déggul aussi am nañu ko déggul il faut nga nga jox ko nit ñi non am nañu koy dégg partout mais que yaa koy joxe ci rajo yi ak yi ñu mën ko teg aussi waaw maa koy joxe ci rajo yi ak yi walfu koo ko fi jox walfu bon walfu walfu walfu ah joxoo ko fi. Ah, du man du caba du prince du maxu du kenn ñëwoon naa pour indi ko fi mais dama fekk sama si sawi ndeysaan si sa bu baax laa dajal ci buntu bi jour boobu mu ngi doon jël congé. ñu waxtaan après ma waaw léegi indiwaat ko boo ñëwee nga laaj ci bëccëg waaw maa allah mhm. euh, looy tàggatoo tey moom wax dëgg fa yàlla euh, lii mooy wane ni un an ngi benn xur dabb nga fee mooy ki ñëwoon bii passé mais gëj moom vraiment bu mu fi jegeeti macha allah looy tàggatoo bon tàggoo bi moom mënumaa toog ci palaatoo ba pare te duma wax waa Pambal dara ko parce que man fa laa dëkk te dama koo bëgg. sunu tali bi depuis 1960 ba tey. 1960 ba tey premier arrondissement du Sénégal. mooy Pambal. ba tey tali bi dafa xonk ba tey tali bi dafa xonk. carrière bi ba sunu jëmm yàllaay tey dafa xonk. non te bu gars yi di dem màggal. fa la ñuy jaar. bu gars yi di dem gàmmu Tiwaawan fa la ñuy jaar fa la ñuy contourner. poussière bi day mu ngi noonu day mel yow boo toogee ceeb bu weex boo toogee ceeb bu weex jarul nga ci def fël-fël day xonk non jarul nga ciy def fël-fël day xonk ci na boo toggee ceeb kon jaar nga fa kon xam nga fa dara ba tey xam nga ñun ñun boog ñun dañuy ñaan président Macky Sall bu dee mu ngi may dégg ci photo yam bi mu toog bu mu tax suñu yaakaar ñun jeunes yi parce que Senghor moo fi toogoon suñu maam yi naan ah Senghor dina ko goudron dina ko goudron ba Senghor dem ñooñ seen yaakaar tas na déjà Abdou Diouf ñëw suñu papa yi naan non Abdou Diouf dina ko goudron dina ko goudron kon ñoon suñu Ablaye Wade dina goudron Ablaye Wade dina ba Ablaye Wade dem mm-hmm. ah, soxnaam soxnaam ñëw na fa jaar na ci tali bi mais tali boobu da reeba tas bu ma sañoon daal man sama cri du cœur daal li ma gën a metti sama àdduna mooy loolu la nañ fexe ba tali bi ñuul rek ñu dégg rek jërëjëf Gaynde Fatma vraiment ñu ngi kontaan ci moom bétti defe naa ne tey sa xol sedd na ah, man nii rek laa leen di leen teg ci plateau bi ñuy yëngal li nga xam ne mooy Sénégal bële passé bu ma daanoo dafa fekk ne espion moo nekk ci plateau bi bëgg maa pëtaxal indil ma ab cuune mbokk bëti la mbokk bëti bi